de vous retrouver chers téléspectateurs de Rewmi TV auditeurs de Rewmi FM mbégte ak contenté la ñuy am saa su ne dalal leen ci seen émission préférée li ci réew mi li ci réew comme ni traité tout ce qui fait l'actualité di leen nuyu bu baax di leen ziar di am yaakaar que ni passé ngeen un bon week en tout cas ñu ngi leen di un très bon début de semaine Dié Diop maa ngi lay nuyu ziar bu baax a baax. soxna Diop bu baax soxna Awa di nuyu Euh, Rewmi FM son excellence euh, Alioune Badara Fall maa ngi lay nuyu di la ziar tey costume nga maye. waaw tey xam nga climat bi xaw naa changé ci weekend mhm. waaw maa ngi lay nuyu Soxna Awa di nuyu Ajaratu Jee mhm. ak euh, monsieur le maire Mbemba Dramé mhm. ainsi que ñi nga xam ne ñoo ñuy teewlu yëpp. très bien le sportif Memba Dramé maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax di ziar ñëpp ñuy teewlu ci waxtu bi. alors bu baaxee rek Malick Faye ñu dem xool li gën a fës ci yéenekaay bi Rewmi Quotidien Rewmi Quotidien xëy ñun euh, Dieng Diop ci li nga xam te ne mooy scrutin bi mu mel ni euh, bu inédit moom la xëyee ci la ñu jëm ndax ñaar fukki euh, candidat la ñu jot a jàpp ci jogante ñu ci réew mi atum 2024. waaw la yéenekaay bi xam tey mu ne nag ci élection yu xaw a doy waar a jëm nag yu bëri coow. Mhm. ndax ñaar conseil constitutionnel retenir pour ñu mën a dem ci élection yooyu. Mm-hmm. Euh, Karim ak Sonko nag euh, dañ leen a écarté kon bokkuñu ci waaye nag kii di Diomaye Faye Habib Sy ak Cheikh Tidiane Dièye ñetti candidat la ñoo xamante ni euh, daanaka ñu ngi lam-lamee ne benn lay mujjee doon ci mën ci doon élection yi daal jàpp nañ ne. bëri na coow jamono ji loolee la yëglekaay bi di leen quotidien dellu soit ginnaaw publication liste bi nga xam ne waa conseil constitutionnel def nañ leneen di maître El Hadj mi nga xamante ne nag moo ngi ñaawlu eh, li jëm ci wàllum parrainage mu nekkoon ganu grand oral fii ci réew Rewmi TV. mu mel ne awa ni nga ko waxee ganu grand oral la moom la ñu dalal nag moom maître El Hadj eh, muy ñaawlu lu jëm ci parenage yeeg anam bi ñu ko doxalee waaye nag eh, ñu wax itam ne lu jëmit ci ay xibaar yoo xam ne nag jot na ko mu soxal Adji saar jot na cee àddu jëmale moom maître El Hadj démb nag moo nekkoon ganu grand oral ñu fàttali ne moom nekkoon na candidat boo xam ne dafa bëggoon a bokk ci élection yi waaye mujjantal gi dañ ko euh, recalé ñu leeral rek ne kon euh, mi ngi noonu loolu la yëglekaay bi di Rewmi Quotidien boole aussi ci euh, ñaar fukki candidat yi nga xam ne dañ leen a retenir comme dañ leen ko waxee léegi léegi jëm ci élection yi nga xam ne moom la ñu war a amal foofee ca 25 février mu doon élection yi ñu nar jëm mu day waat loolu. Mm-hmm. leneen jëm ci chiffre d'affaires au secteur lu ëpp a 2022 bi. waaw yokkute la gu ñu nemmeeku donte ne eh, gis nañ boobaak léegi ay jafe-jafe ñuy tudd ca poste liggéeykat yi di ko amee waaye terewul nag seen chiffre d'affaires dafa daal di yokku ndax bu ñu xoolee ci atum 2020. tolloon na ci 13 milliards ñu dem ba 22 2022 eh, ñu gis ne yegg na ci 17 milliards ñu gis ne kon loolu avancement la boo xam ne eh, bu am la ca poste même si sax ñu ngi ci ay jafe-jafe saay su nekk. Mm-hmm. leneen di braquage bu am ca Wakam lu doy waar koo xamante ne yàgg nañ ko condamné ci wàllu boobule moom nag moo jël ci benn chef d'entreprise du toll ak juróomi million ci koppar. mu di Adama Ndiaye di ab defkatu ñaawteef bu xarañ lool ci li muy liggéey moom nag dañ kaa tëj ñaari kàttu kaso yoo xamante ne benn rek lay tëdd ginnaaw bi nga xam ne nii euh, gis nañ ne euh, dafa daal di yóbbu benn saagu chef d'entreprise boo xam ne rek amoon na lu toll si juróomi million ak benn téléphone portable naka noonu aussi benn ordinateur yëf nag mi ngi xewee ca Wakaam yéenekaay bi xëy dellu si ci nag ginnaaw bi nga xam ne moom teg nañ ko loxo. Adama Ndiaye fi mu toll nii kon benn naatu kasu képp la war a tëdd. Mhm. kon bu baaxee rek nga dëppal ñu yéene kaay bi Malick Faye ñu dem xool li gën a fës ci tàggat yaram Memba Dramé lañ ci àndal ñu waxtaanee CAN 2023 euh, Sénégal mu mel ni Aliou Cissé daal hôpital la mujjee ginnaaw ga mu amee woon ab benn malaise. Euh, yaram ba match bi jeexee. waaye bu ñu sukkandikoo ci fédération sénégalaise bu football bu ñu génnee communiqué nag ñu ngi xamal ne Aliou Cissé mi ngi am tan bu baax. Mhm. ba rejoindre na ñi nga xam ne itam moom moo di gaynde yi ci seen entraînement. xam naa ni itam li nga xam ne moo jëm ci émotion ak euh, wérum wér yaram itam joueurs yi da leen di faral di jàpp itam euh, ak euh, coono gi nga xam ni itam moom moo nekkoon ci moom rek loolu xëy na moom moo waral mu génn waaye fédération moom xamal ne ne joxe na ay assurance ci li nga xam ne moo jëm ci wér-gu-yaramu Aliou Cissé. Mm-hmm. parce gis nañ kàddu yi nga xam te ne El Hadj Diouf moom itamit nekkoon ancien Lion jotoon na kaa yëkkati comme quoi biir buy métti da leen di faral di leen dal ñoom yi. waaw moom loolu la yëkkati comme kàddu mooy El Hadj Ousseynou Diouf bokk na ci conseil yi nga xam ne itam.

bokk nañ ci biir euh, tañeet bi waaye li nga xam ne moo jëm ci fédération bi moom daanaka euh, la nga xam ne tënk na ko ci ab communiqué. Mm-hmm. Euh, li nga xam ne nag moo jëm ci wér gu yaramu Aliou Cissé kon mi ngi am tan bu ñu sukkandikoo ci seen bataaxal bi nga xam ne daan nañ koy fësal. très bien ñu koy gën a ñaanal tan ndax soxla nañ ko bu baax a baax moom ñi nga xam te ne mooy sélectionneur gaynde yi leneen jëm ci Côte d'Ivoire Nigéria Égypte waaye tamit Ghana mu mel ne adversaire potentiel lañ ci Sénégal yi jëm ci huitième loolu ku nekk itam faw nga xam nan nga war a taxawee ci mbir bi ñetteelu jongante yi daanaka dina door tey ci diggante Côte d'Ivoire ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Guinée équatoriale itam ñooñu ay potentiel adversaire la comme ni nga ko waxee. Mm-hmm. li nga xam ne itam moom moo jëm ci compétition yi ni mel nag mënut mucc huitième de finale yi mën nañ ci am ay surprise Sénégal Ghana ni nga ko waxee Sénégal Guinée équatoriale Sénégal Côte d'Ivoire Nigéria ba ci Nigéria sax ay match la yi nga xam ne itam euh, ndaw Aliou Cissé mën nañ xaar ku ci nekk ci équipe yooyu itam mën na daje ak ñoom ci li xam ne moo jëm ci huitième de finale coupe d' Afrique nations bi xewee ca diwaan Côte d'Ivoire. très bien kon moo ngi noonu li ma gën a fës ci yéen bi réew mi quotidien à France seulement vous informer sur tout ce qui fait kon daaw leen gaaw ci seen kiosque bu gën a jege ngeen jënd ko di féliciter toute la rédaction de réew mi quotidien pour ce magnifique travail merci beaucoup Malick Faye euh, dañuy sóobu léegi léegi wuutu njiitu réew mi atuma 2024 fi mu toll nii lan nga gis ne euh, xëy na am na ku ci war a mën a wuutu euh, kii di euh, Macky Sall. waaw muy gulet tamit ñu euh, yegg si ci ay élections yu mel nii fii ci réew Sénégal awa mm-hmm. ndax bu ñu xoolee vingt candidats moom man bi ma euh, juddoo ba léegi maa ngi doon a gis ñu tànn leen ñu di ay mbër yu war a dem ci élections yi. Mm-hmm. Euh, ci ñoom ñoom ñëpp dañoo remplir seen ay fiche de parrainage remplir aussi li nga xam ne mooy neuf critères yi ñu leen doon laaj ba tax ñu tey ji bokk ci ñi nga xamante nii retenir nañ leen ci parrainage yi boobaak léegi nag ni nga ko waxee ñi ñaa ngi doon toog di xaar mm-hmm. liste bi nga xam ne moom la waa conseil a génnee ngir ñu xam dëgg-dëgg yan mbër ñoom ñooy dem ci élection yi euh, xam nañ ko nag vingt candidats lañu mu mel ne benn recalé la ñu am muy di mm. muy Karim Meïssa Wade mm-hmm. ndax vingt et un la ñu woon yu franchir euh, état parrainage bi kon euh, vingt yi nag ci la ñuy xamee ñan ñoo ciy dem kan moom moo ci jël ëllëg toogu gi ci ci ci remplacer ki nga xam ne comme ni ñu ko waxee président Macky Sall ci mm-hmm. bopp Sénégal loolu xëy na dinañ ci xam dara mais li man li ma mën a jàpp rek moom mooy vingt candidats yi yëpp nan la nit ñi nar a def ak mu ñoom. 20 candidats yu fas yéene ku nekk nga war a xam programme am war a capter la ci am solo waa bëri na trop war a capter li ci am solo war a war a war a war a war a toog bàyyi ko xel xam nga tey jii euh, amaana bu ñu nekkul woon 20 xëy na tànneef gi ak segg gi dina gën a xaw a yomb ci nit ñi rawatina ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen di tànn mm. mais lu toll ne 20 candidats xëy na nag peut-être. dañoo ñoom ñu ci kenn ku ñoom ñi ñu tànn ñëpp xëy na kenn ku ci nekk li nga xamante ne moom lañ la laaj loolu nga matal moo tax que euh, conseil constitutionnel bi nga xamante ne nii moom moo leen validé am na xamante ne ay candidat lañu defoon nañ ci ñoom ay recours te tere taxul moom mu euh, tënku ci recours yooyu noonu terewul daf leen a validé xëy na ñoom ñëpp ku nekk remplir nga li nga xamante ne moom moom mooy sa wareef tax nga war a nekk candidat mais ñu ñu xam ne tànneefu njiitu réew nekkul tànneefu euh, maire nekkul fu député nekkul njiitu réew la ñu wax koy jiite mi ngi noonu. Mm-hmm. ci vingt candidats yi yëpp am na ñoo xamante ne nii jàpp nañ ne yor nañ posture nekk tey jii président de la république pourquoi pas ñu war leen a mën a jiital. Hmm. jox leen seen chance aussi ñu ñu ñu nekk ay njiitu réew mais li ma ci xool ba jàngat ko ci daal moom mooy man vingt yi nga xamante ne nii moom la ñu tànn man dafa bëri ci man ba nga xamante ne nii terewul nag ñu jëm ci élection yi ni ko journal yu bëri waxee. Hmm. Euh, élection yoo xamante ne nii bëri na ñaxtu lool ñu nemmeeku ko fii ci réew Sénégal surtout élection yi ren yi parce que gis nga recalé yi booba léegi ñu ngi def seen ay ñaxtu di la wax nañ leen dugalaat ci fichier électoral bi ñu gis ñi nga xamante nii ñoom la tànn ñoom kenn ku ci nekk instant bi nanguwoo dégg report élection mm-hmm. recours yi bëri na contestation yi bëri na élection yi daal awa li ma si mën a jàpp jàpp ko daal moom mooy ñu ngi ciy dem mais du yomb mm-hmm. du yomb ci population bi du yomb aussi ci candidat yi mm-hmm. buñ ne wuutu Macky Sall defe naa ni askan wi ñoom ñooy mujjee tànn ah ño moom kay kàddu gu mujj gi ci askan bi la kàddu gu mujj gi leen ñu jël ko tànn ko ñoom it am nañ koo xamante nii tey jii parce que ñun ñun askanu Sénégal kenn ku nekk am nga benn candidat ci 20 candidats yi mm-hmm. kenn ku nekk ñaan nga yàlla sa candidat gagné mais est-ce que tamit euh, sa candidat gagné euh, terewul aussi nga war a xool ba xam ndax sa candidat boobu noonu discours yi mu yëkkati mm-hmm. doy na la tey jii ba nga war ko mën a dénk parce que réew dafa nekk loo xamante ne nii du du du du du gox du du du du quartier boo xamante ni da ngay xool n'importe kii kii neex na ma rek ma mm-hmm. jël ko tànn ko def jox ko mu jiite réew mi nañ fexe ba yi yi gën a bàyyi xel nañu gën a bàyyi xel ci ci euh, ci euh, programme yi nga xam ne dañ koy taxawal ñoom candidat yi mm-hmm. laataa ñoo jël n'importe qui di ko tànn muy muy muy jiite bopp réew mm-hmm. Sénégal loolu daal laa gis mais kan nga gis comme profil boo xamante ne xëy na am na charisme bu toll nii dina mën a jiite réewu Sénégal ñoom ñëpp am nañ ay profil am nañ mm. charisme pour jiite réew Sénégal pourquoi pas jigéen ñi jigéen ñi ci bokk sax mën nañoo jiite Anta Babacar Ngom Sénégal su mm. Rose Wardini donc ñoom ñëpp xëy na am nañ parce que tey jii le fait que ñu ñu franchir étape yii nii rek. ba ba nekk ay candidats pour dem ci élection yi rek. déjà foofu ay affaire de euh, nu ku mën a jiite. ku mën a jiite yaakaar naa c'est nañ ko. Mm-hmm. mais le fait que man programme bi surtout laa wax ne nañ ci gën a bàyyi xel. Mm-hmm. ñu gën a déglu ki nga xamante ne nii moom moo ñuy tegal programme bu leer nañ boo xamante ne nii leer nañ ne kii bu ko falee. Mm-hmm. dina doxal suñu réew mi changement bi nit ñi bëgg dina ko fi indi. coppite yeeg yëpp daal dina ko fi indi man loolu côté boobu laay laay gën a nit ñi. am na solo euh, Alioune Badara Fall mu mel nii euh, fi mu toll nii leer na vingt candidats euh, la ñu tànn ngir ñu mën a dem ci njogante ñu réew mi atuma deux mille vingt quatre lan moo ci sa gis-gis ba jànkat nga ci am. waaw euh, c'est vrai que euh, attente bi ñu bëri ñu ngi ko doon xaar ba samedi bi. Mm-hmm. gis nga au finish ci ñaar fukk ak benn yi nga xam ne euh, ñoom lañ retineroon ci pàcc bu njëkk bi mu di pàccu parenage bi. ñaar fukk ñoo ci mujj dem ñu wàññi ci kenn. ñaar mm-hmm. fukk yooyu nag comme ni ko jee waxee ñoom ñëpp am nañ profil boo xam ne mën nañu yor réew. Mm-hmm. la ñu ca nemmeeku nag mooy bëri na ci ay ndombal tànku premier ministre. premier ministre nag bu ñu ko waxee ci Sénégal kon tey jii dañuy joxaat war a joxaat gëdd premier ministre mu nekk ko wax parce boo xoolee kii di euh, kii Ba ba tey premier ministre la moom naam bu fekkee ni mi ngi koy yor ba tey mm-hmm. waaye ki nga xam ne moo di Idrissa Seck nekkoon na premier ministre ki nga xam ne moo di Mohamed Boun Abdallah Dionne nekkoon na premier am na tamit yeneen premier ministre yoo xam ne tey jii dañ leen a rak euh, mm-hmm. ku ci mel ni Abdoul euh, Abdoul Mbaye mm-hmm. ak am na keneen koo xam ne sax recalé nañ ko ci ci premier ministre yi première mi ndombal tànk la boo xam ne bu ñu fa àggee tey jii ñoom jàpp nañ ni nag waratuñu euh, décider ci Sénégal te ñoom teguñu ci seen euh, tànk parce que ñoom dañuy jàpp ne en ñoom ñoo war a nekk numéro 2 wala lu ni mel juróom ñaar fukki candidat jee nee na bëri na man jàpp naa ni bëriwul. Mm-hmm. parce que li tax ma jàpp ni bëriwul parce que tey jii yenn candidat yi nga xam ne dañoo jàpp ni dañ leen a spolier. ñu bëri jàpp ni ñi ay clé leen dindi. du mm-hmm. benn critère boo xamante ne nii moo leen dàq am na ñoo xam ne matal nañ neuf critères yëpp xëy na seeni i moo leen manqué. Mm-hmm. léegi wala yenn jumtuwaay yoo xamante ni ñaawlu nañ ko ñoo ñu tey jii bu ñu ñëwoon dinañ àgg ay <laughs> dinañ lim bi dina ëpp vingt jee <laughs> léegi nag loolu mi ngi expliqué wu. ci ci ci on pouvait s'attendre de candidature parce que. tout à fait. waaw mais mooy ça veut dire que nag euh, la population augmente. Mm-hmm. Sénégalais mi ngi dem d'où l'importance soxna jee ñu corsé bu baax a baax a baax dem gi. Mm-hmm. xam nga lépp lépp soxna jee mi ngi ci ñu corsé waat bu baax a baax euh, euh, critères yi. Mm-hmm. buñ ko corsé 44000 ce n'est rien. du dara xanaa yow Dieye Diop mi yow boo yëngalee seen mbokk yi rek yow am nga 44000 pare. waaw léegi nag mooy loolu donc il faut que ñu corsé waat ko bu baax loolu lañ ciy jàngat parrainage bi baax na imaginer lu woon tey jii bu ñu tegul woon parrainage. Mm. kon dinañ ëpp li mais nag bul fàtte même bu fekkee ni en 2019 5 candidats la ñu amoon mais en 2012 amoon nañ lu toll ci 12 candidats ak yooyu te 2012 ak léegi war nañ fi mën a yokk bu baax yokk waat amoon nañ lu toll ci ay 12 candidats donc tey jii liñ ci mën a jàpp daal mooy mooy dafa Sénégal mi ngi avancé nit ñi ñu ngi yokk ambition présidentielle mi ngi gën a soxal ñi nga xam ne ñoo di askan wi mhm. nemmeetuñ ci tamit ay tey jii ay politique rek lañ ci daan gis ñu di nekk ay politiciens wala jiite dara waaye tey jii boo xoolee tey jii euh, ku mel ni Serigne Mboup doo ko gis ci mu nekk ab ab ab politicien Anta Babacar Ngom doo ko gis tey jii mu nekkoon benn politicien boo xamante ne entrepreneur la jiite wala entreprise gis ba donc l'appétit euh, bu siège u président de la république mi ngi gën a dugg ci ñi nga xamante ni ñii ñoo di askan bi et puis loolu c'est bien il faut il faut ñu ñu ñu ñu rafetlu ko parce que mm-hmm. le pays n'appartient pas aux aux politiques mm-hmm. ñoom ay infime partie lañ ci réew mi te nit tamit des fois di nga toog sa kër nga calculer xam ni tey jii kii toog ci bopp réew poste ministre bi wala kii jiite parti bi li muy def ëpp ko te man am naa sama euh, am naa sama gis-gis goo xam ne war naa ko mën a indi ci réew mi mais da nga doo toog rek toogaale ko ba ba màggataale ko ba kii xam boo ko yoree da nga koy génnee mm. yow nag yaay xool à travers nan nga ko mën a génnee mooy ndax da nga ni da ngay soobu ci wàllu politique naam bu fekk parce que tamit soobu ci politique taxul nga nekk un politicien mm. mën nga soobu ci politique bañ a créer parti parce que gis nañu élection euh, locale yi mën nga dem ambition politique am waaw parce que mm. politique rek moom mooy façon bi nga xamante ni war nga ko def pour mën a gérer pour mën a diriger loolu yëpp politique la pexe ma la rek pexe moo xam ne boo koy teg pour mën a yor ëllëg loolu mooy politique mhm. donc nag euh, gis nga élection locale ñi nga xam ne dañuy dem permettre nañ ay candidature indépendante ci président de la république même bu fekkee ni sax mën nga nekk une candidature am candidature indépendante mhm. yooyu yëpp tey jii day wane ni mën nga dem ci euh, jongante réew mi te doo nekk euh, un fin politique mhm. boo xamante ni tey jii pour loolu yaakaar ma ngoog wax liñ ci jee wax jàpp nañ ko et li ci jee wax am na solo waaye tey jii rek li muy wunduwaat rek mooy réew mi mi ngi avancé tey jii bu ñu yam ci ñaar fukki candidat yi rek parce que tamit ñi nga xam ne dañoo jàpp ne dañ leen a spolier mm. ñooñ tey ji ña ngay sàkkuwaat wax nga ko sànq ña ngay sàkkuwaat est tey ji la ñuy sàkku conseil constitutionnel dana ko nangu man xam nga ñun xamuñu ci di wax rek lañ leen di wax moom mooy dañoo dañoo dañoo dañoo a dem xool instant bi nu ñu mën a defee ay coalition xool nu ñuy defee ay allié pour jàppale mhm. candidat bi nga xam ne moom lañ jàpp ne moo war a falu mhm. mais quant à di continuer ci yooyu di basé wu ci ñu xoolaat seen ay dossier franchement parler loolu da leen di tardeel pour man waaw nga loolu mooy mooy yow sa gis-gis mais ñoom seen gis-gis mooy dañoo jàpp nii Euh, danoo jàpp ni euh, dañ leen a mm-hmm. ñu jëm dem euh, indi ab plainte mm-hmm. boo euh, wala ab réclamation te seen droit lañ nekk mënoo leen ko bañal mm-hmm. ba pay ji ñu taxaw tamit di wax ak askan wi ñoom ñëwuñu ne nañ pousse e-, élection yi dañoo ñëw ne nañ ko càmbaraat ceytuwaat ko pour ñëw est-ce que tey jii danañ ko defam duñ ko def mm-hmm. bon xëy na conseil constitutionnel moo moo moo ci àddu mais nag tey jii am na même en dehors de ñooñu nga xam ne dañoo jàpp ne dañ leen a spolier am na plainte bu bu bu bu tegu ci kaw conseil constitutionnel droit donc nag comme tey jii. Uh-huh. ñu wax ni ñooñu xëy na conseil constitutionnel dina leen indiwaat wala dina leen indilaat uh-huh. mais de toute façon daal ñaar fukki candidat la yoo xamante ni euh, yu am solo lañ ci réew mi. ñun uh-huh. ñëpp nag kenn ku ne def nga say preuve ñu bàyyi leen nag ñoom ak seen programme yi nga xam ne tànn nañ ko ak Sénégal yi surtout ñu def vote boo xamante ni ci jàmm lay doon vote utile lay doon. très bien alors 20 candidats en piste euh, Memba Dramé fi mu toll nii taxaw nañ te mbir yi leer na euh, jëm ci njogante ti réew mi lan moo ci sa jàngat. waaw jàngat bu njëkk bi mooy. tey euh, conseil constitutionnel wax na ñi nga xam ni ñooy mbër. ñi mhm. nga xam ni war nañ jogante euh, ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ci élection présidentielle yi ñu dëgmal. mu nekk élection yu am solo yi nga xam ni déjà ñu foog ñu wax ko parce que président sortant bokk ci. Mhm. président de la république Macky Sall déjà dafay joxe lengay incha allahu rabbi le 2 avril ci ki nga xam ni itam moo ko nara a wutu ci palais bi. Ah. alors beneen jàngat bi mooy bokk na ci itam li nga xam ni moo jëm ci processus euh, étape parrainage bi mhm. coow. waaye hmm. mujjanteel bi gis nañ ni li nga xam ne moo jëm ci conseil constitutionnel lu mu dogal. Hmm. alors am na ay rëkk am na ay ndëng de je pense que itam ñoom ñoo gën a habilité ci tontu. ndax seddu bi itam beneen la mooy gis nañ ay recours yi nga xam ne itam dugal nañ ko recours yi nga xam ne itam aboutir na comme le cas de Thierno Alassane bi nga xam ne dugal na retour recours ki nga xam ne moom moo di euh, euh, Karim Meïssa Wade ci li jëm ci coowal double nationalité. am na gain de cause ci li nga xam ne itam moom moo jëm ci recours bi foo faut hmm. ko. beneen bi bokk na ci itam man bokk na ci benn xayma bi nga xam ne def naa ko la candidat de la coalition benn Bokk Yaakaar avec ces mm. deux recours mm-hmm. gis nañ ni dañ ko rejeté mm-hmm. loolu itam il faut que ñu wax ko parce que lan moo ko lan moo poussé woon mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom di coalition benn Bokk Yaakaar ñu def recours yi ni mel au niveau du conseil constitutionnel pour mun a invalider ay candidature ki nga xam ne moom moo di Cheikh Tidiane Dieye ak ki nga xam ne moo di Bassirou euh, Diakhar Faye Diomaye Diakhar Faye de toute façon ak lu ci mënti wax nañ ko fii fàttaliku. te lépp li nga xam ne joxe nañ ko comme bind nañ ko ci euh, procès verbal wala sax document bi wane ni ñoom fii lañ tënku ñu gàntal li ni mel ñu nangu li ni loolu lépp tënk nañu ko. boo xoolee Ousmane Sonko ci li nga xam ne gàntal nañ ko mooy coowal moo diffamation moo Mame Mbaye Niang ki nga xam ni euh, moom moo di Ousmane Sonko moom fa lañ éliminer Ousmane Sonko ñoom fa lañ sukkandiku ngir mën a éliminer Ousmane Sonko. Mhm. donc loolu la lay may ni rek euh, déjà tànn nañ vingt candidats yi nga xam ne ñoom ñoo war a bokk ci joŋante élection présidentielle yi. Mhm. bari na bariwul parce que bu ñu bu fekkoon ni filtrage amuloon jee 93 la ñuy doon mujjee te 93 wax dëgg yàlla. fa la ñuy dem ci ay élections loolu benn inquiétude bi nga xam ne ñu daal di koy waxtaanee. Mhm. beneen bi bokk na ci itam ci conseil constitutionnel dëgg la parrainage baax na. Mhm. dëgg la day segg ay candidats waaye itam faaw rek ñu indi si ay joyanti. Mhm. ndax bu ñu demee itam bay am vingt candidats itam war nañu mun a poser la question. parrainage beeg ainsi de suite. waaye am ñàkkul ni xëy na ñi nga xam ne ñoo di acteurs politiques yi ëllëg ci biir bu ñuy demati dialogue dinañ soulever question bi ni mel. daal di ko fay waxtaanee. vingt candidats ku ci nekk am nga sens mun a nekk président de la république. mais ci Sénégal man dama jàpp ni réew la bu nga xam ni du fal n'importe qui ku ñuy fal ku ne dañ lay dañ dinañ xool dëgg la mm-hmm. programme benn boo xoolee Sénégal tënkuwuñ lool ci li nga xam ne moo jëm ci euh, vote programme mm-hmm. ci affection la ñuy diw moom ma neex diw moo ainsi de suite waaye war nañ mën a dépasser li nga xam ne moo jëm ci état bi nu mel mm-hmm. tey nga xool ko côté camp présidentiel bu leen fàtte ni président Macky Sall en 2019. Mhm. dafa amoon 58 virgule je pense 27 pour cent ci li xam ne moo jëm moo ko mayoon élection yi ngir mu bañ ko premier tour. alors élection yooyu noonu nag tey président de la république Macky Sall Alioune Badara Fall demul mhm. élection. Mhm. dafa tànn ab mbër. mbër bi nga xam ni itam mosut a dem élection moom kese. maanaam local moo xam présidentiel mus dem musul natt boppam ci mm. coefficient bi nga xam ne itam dina ko am mm. alors 58 pour cent yooyu nga xool ko ci coalition benn Bokk Yaakaar y'avait Mahammed Boun Abdallah Dionne mi ngi woon ci biir coalition bi mm. y'avait Aly Ngouille Ndiaye mi ngi woon ci coalition Mame Boye ci biir coalition ak ku nekk li nga mën a am si sa côté ngir nga mën a dajale coefficient bi ni mel mooy sa qui diir dire élection yi ñu jëm munuñu am premier tour cinquante huit pour cent mhm. loolu déjà il faut que ñu ñu ñu waxtaanee ko mhm. cinquante huit pour cent yooyu nag dina jafe ngir euh, mbër ma xam ni moom lañ jiital ci camp pouvoir pour mu mun ko am mhm. léegi nag électorat bi dafay tas boo ko xoolee itam ci li xam ne moo jëm ci opposition vingt candidats. Mhm. ñu si bari nga génn si benn bokk yaakaar moom mooy seul candidat bi nga xam ne moo nekk ci pouvair bi ñeneen ñi waxaguñ fu ñu féetee ak ainsi ay candidats lañ. Mhm. opposition bi dèjà candidats yi bari nañ. te mhm. candidat dañ ne ne candidature yi bu baree itam dina mën a indi benn jeexintal bi nga xam dina ko am ci biir élection yi nga xool coalition bi nga xam ne moo di euh, wala ex parti Pastef. ex parti dèjà. am nañ Cheikh Tidiane Dieye allié sur la bu Ousmane Sonko te ñu si bari sax dañ jàpp ni waa ex parti Pastef jàpp nañ ci li nga xam ne moom moo jëm ci parrainage am nga xool ci nga xam ne moo di abib si mhm. boo xoolee la quasi totalité député yu parti Pastef ñoom ñoo ko daal di parrainel mhm. ci geneen wàll gi Bassirou Diomaye Faye alors yow déjà ci fi ñu toll fi ñu toll nii fu may waxee yow nii déjà conflit dina am wala benn njaxare dina xam ne dina am ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Pastef même bu jàppee ñii bu ñu jàppee nii Diomaye mooy diw kële mooy diw mhm. mun na indi benn doute ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay candidat yeneen itam am nañ ci candidat bi ci biir opposition bi am na ñi nga xam ne itam ñu ngi taxaw radicaluñ Sarr ak ñeneen ak ñeneen. Mhm. Khalifa Sall itam potentiel candidat la tey boo xoolee parti socialiste dëgg la kuréel gu mag la. Mhm. mais parti socialiste dëgg la am na ay militants am na ay sympathisants yi nga xam ne itam ñoom ñi ngi taxaw base li nga xam ne itam moom mooy fan mais tey boo xoolee ci suuf ñu ci bari dinañ ànd ak moom ci li jëm ci wàllum élection yi kon ce qui veut dire que élection yu ubbeeku lañ nar a am ci 2024 euh, bi ñu dem. Mhm. surprise nag mun naa bawoo fu nekk mais lu ñu ci mën a am daal mooy apaisement la ñuy ñaan scrutin bi itam ku ci nekk booy voté nga voté sa teeyaay xel yi yaa xam fi ngay voté ndax programme moo tax ngay voté ndax mm. di wala doy ak ainsi de suite lu ci mën a am daal élection yu ubbeeku élection yu am solo lañ nar a dem parce que guleet ñuy dem ci ay élection yi nga xam ni itam li nga xam ni moom moo jëm ci élection présidentielle président sortant ba du ci bokk mm. ba pare itam il faut sa poser la question kan la électorat parti démocratique sénégalais di jariñ ci élection yi man fa laay tëjee sama kàddu. très bien defe naa ne am na solo daanaka dinañ ci am lu ñu gën a leer euh, jëm ci euh, wàll boobu lépp dak euh, ci le soir du cinq février defe naa ci la ñuy gën a xam nan la nar a mujjee waaye nag ji am na li nga xam te ne mooy wàllum tamit Bassirou Diomaye Faye parce que moom tamit sa candidature doon na loo xamante ne. Mm-hmm. xaw na doy wax surtout pour un candidat en prison moom surtout ci candidature mu war a bokk nag ci njongante njiitu réew mi atum 2024. waaw mu nekk loo xamante ne nii xëy na euh, ñu bëri bëri lu ñuy poser question boobu noonu parce que boo fàttalikoo xam nga Bassirou Diomaye Faye ñi jàppoon na sax dinañ invalider am daanaka bëri na euh, yàlla def euh, ñu gis recours bi nga xamante ne nii moom Amadou Ba déposé woon na ko jëmale ko ci moom ak Cheikh Tidiane Dièye mais comme dañ ne woon nañ bàyyi rek waa conseil constitutionnel ñoom ñooy tranché. Mhm. dem nañ ba mujj gi ñu jox ko ñu valider candidature am Sénégal nag mën naa jàpp jàpp ne xëy la première fois ñu gis benn candidat boo xamante ne dafa war a dem élection ñu valider candidature mu fekk ko ci prison bi peut-être experts yi ñu ngi fi ñi xam ne seen xam dafa màcc jëm ci wàllu wi. Mhm. ñu ngi fi ndax gis nañ ne loi bi prévoirul dara loo xamante ne nii dafa jëm ci benn candidat prisonnier pour ñu xool ba xam dañ koy bàyyi dès que ñu wax ne candidat la wala dañu koy bàyyi mu nekk ci kaso bi di fa continuer di def campagne am. Mhm. xamuñu mais xëy na au fur et ñuy dem dinañ xam lu leer parce que. comme moom mi ngi ci kase bi du du soit benn lenn laa jàpp ne mooy am. Hmm. ñu fekk ko ci kaso ba mu fay defee déclaration te nee nañ loolu mënta nekk. Ah. wala soit ñu génnee ko mu dem defi campagne hmm. loolu nag moom moo nekk loo xamante ni euh, lu lu lu ñu jaral yu dafa bëri ay questions yu ñu yu ñu ciy yu ñu ciy laaj daal naka la nara a soit wala parti bi nga xamante ne nii xëy na dañ koo fal wala parrainage yi mu am ak coté bi mu ko amee ñoom ñëpp xëy na hmm. ñooñu mu bokkaloon parti. defal ko campagne ba keroog di ko fal nekk président xëy dina génn ci kaso bi mais lu mu ci mënti doon kaawam nekk na loo xamante ne cas bu la peut-être xëy na président de la république comme jàpp na comme jàpp nañ na Bassirou candidat la mën na ko euh, grâce xëy na may ko grâce mu génn dem defi campagne am yooyu yëpp daal ay question la yoo xamante ne nii ñu ngi koy posé du ñàkk nag dinañ ci gën a am lu leer parce que tey jii ñun xarañuñu bu baax a baax pour xam lan mooy doon tontu bi carrément mais suñu xalaat rek la ñuy joxe par rapport ak candidat Bassirou Faye mais en tout cas du du du yomb ci moom le fait mu nekk prison ba pare war a tenir campagne. war a war a war a war a waxtaan ak askan wi xëy na prison la nekkoon bi muy am parrainage bi ko may tey mu jàll nekk candidat. Mm-hmm. mais amaana def par am parrainage wala wut parrainage nga nekk prison bokkul ak nga war a campagne pour war a dem. defi ji defi ji waxtaan ak askan wi dagaan seen i baat pour ñu fal la nga nekk njiitu réew en tout cas kaa am daal xëy na peut-être dinañ ci xam dara après. très bien alors Alioune Badara Fall sa jàngat ci euh, le cas de Bassirou Diomaye Faye parce que gis nañ ne euh, nan na bokk ci jogati njiitu réew mi mais un candidat en prison tey euh, nan la nar a demee selon toi. waaw man damaa jàpp d'abord ni pour que mu mën a nekk candidat nekk ci liste vingt candidats yi nga xam ne ñoom lañ retenir il fal fallu d'abord ñu xool neuf critères yooyu te neuf critères yooyu bokkoon na ci euh, mu am benn euh, mu bañ a am benn jafe-jafe boo xam ne daan la dañ koy daan ci wàllu justice. loolu ce qui veut dire que ba tey jii ñuy wax kon daanaguñ ko dara. daanaguñ ko dara tegaguñu dara ci ndoddam loo xamante ne nii àtte nañ ko ba àtte bi euh, euh, définitif ñu ni nag Bassirou Diomaye Faye lii lañ ko daanee mm-hmm. loolu bokk na ci juróom-ñeenti critères yi kon ba tey jii ñuy àddu euh, daanewuñ ko dara léegi bu ñu jëlee lu jëm ci wàllum droit ñu tegee ko ne ñu mm-hmm. wax ci wàllu lu yanu maanaa ak lu raisonnement lu loo xamante ni dañu jàpp ni élection présidentielle euh, moom mooy élection bi gën a rëy ci ab réew moom lu muy tabb mooy tabb jiitum réew nit ki nag bu fekkee ni dañoo jàpp ni da koo jàpp Euh, dañ koo téye te tegaguñu benn daan ci kawam goo xamante ni àtte nañ ko ba teg daan ci kawam mu dem ba remplir neuf critères yi nga xamante ni nii euh, yooyu lañ doon sàkku kon tey jii bu demee ba war a bokk ci jongante yi mm-hmm. li yoon li ñuy jàpp ni moo gën ci moo gën ci réew te àgg na foofu mooy ñu bàyyi ko mu def campagne loolu c'est le minimum war na te yoon loolu war na ko prévoir xëy na peut-être juristes yi dinañ ci mës a mën a àddu parce que gis naa tey sax kuy euh, kuy euh, rappeler. Euh, li nga mhm. xamante ni mooy cour suprême li nga xam ne waxoon na ko ci xawma article loi cent trente et quelque. Mhm. xam naa dinañ ci dina dina dinañ ci gëstuwaat bu baax a baax. Mhm. mais mais lii yoon tey jii mooy ñu bàyyi ko mu dem defi campagne bis bu campagne bi ubbee tout de même ñu jàpp ni nag amoon na loo xamante ni moo ko téye woon kaso loolu après ñu lijjanti ko. mais muy ki boo demee. boo demee ci wàllu raisonnement dem ba war a xëccoo njiitum réew euh, nekk koo xamante ni tey jii euh, yaa ngi ci kaso bi war nañ laa man gis naa fi xëy na boobu xale lañ gis nañ fi Balla Gaye Balla Balla Balla Balla un Gaye 1 numéro 1. bu daan bëre daan na ko fekk ci kaso bi. Hmm. Balla Gaye numéro un dañ ko daan jëli. Eh, dañ ko daan jëli ca prison ba. waaye Balla Gaye numéro un boobu amul woon adversaire ci ci côté boobu xëy na mu dafa daan am dafa daan am lu mu daan jëflanteeg yoon ba tax ñu di ko tëj bu ñu ko wutalee combat génn dem bëri ñëwaat delluwaat. mais lii bokkul ak li ngay comparé Fall. xaar mu ñëw. acca <laughs> xaar mu ñëw rek di nga xam moo ñëw dina di nga di di nga comprendre. Mm. dama ne. Mm. Balla Gaye numéro un. Mm. dañ ko daan teg daan. yóbbu ko kaso. Mm-hmm. maa ngi jégalu bu baax sax ci kaso yi ngay xam ne nit di ko nettali mais dañ ko daan bu amee komba hmm. bu amee combat dañ ko daan jëlee ca kaso ba indi ko ca euh, stade ba mu bëre ba pare delluwaat ci kaso bi naam nag naam bëri la ñu mën a may nit loolu te bëri soxalul maanaam la mu doon bëri la mu cay am. Hmm. ak la cay mën a tukkee ca moom dong la yem. Hmm. président de la république la cay tukkee mooy 18 millions de sénégalais yëpp. moom lay jiite Balla Gaye numéro 1 boobu jiitewul 18 millions de sénégalais 18 jiitewul 1 million de sénégalais jiitewul de moom affaire personnelle am ci moom dong la yemoon. ñu mën koo féexal mu ñëw def activité am. la cay tukkee tukkee mu doog a delluwaat. Mm. waaw bu fekkee ne nag bëre ci bëre la ñu mën a may nit. ci activité personnelle mu dem defi activité personnelle am ñëwaat dellu prison waxuma li ngay comparé bokkul de. moom dalaa bëgg wax ne ñaari bëre yi wute na du ma du ma nangu ñaari bëre yi wute la parce que déjà yow Balla Gaye Balla Gaye moom ngay wax mhm. dafa jëflante ak keneen mhm. tooñ ak keneen wala mu def leneen loo xam ne dëppoowul ak yoon mhm. ñu jël ko teg ko ay daan kooku may ko mu dem bëre ñëwaat dellu ci kaso bi dina yomb mais kii dafa jëflante ak yoon yoon la joteel kii nguur la joteel xam nga ñaari combat yi peut-être mën nañ leen jotewut ak nguur Bassirou jotewul ak nguur de ñu ko dencee ci kaso bi. ah outrage ak magistrat <laughs> outrage à un magistrat. ay ca doxalal. xam nga xam nga jee pour pour man ñoo bokk sax fi ñuy fi ñuy waxee. Uh-huh. li ma bëgg li ma bëgg a wax à travers cet cet exemple boobu nga xam ne jël naa ko mooy. mooy wax naa ko léegi mooy bu fekkee ni euh, soxnaa wa uh-huh. euh, ab mbër la nu mën a may mu dem bëre ji delluwaat waxuma laa ki nga xamante ni dafa bëgg a jiite Sénégal 18 <laughs> millions de Sénégal ñu seet ko ci juróom-ñeenti critères yi ñu ne kii mën naa dem léegi nag yow féexal ko mu dem defi campagne bu paree la cay tukkee ñu tukkee ko mhm. ensuite lenn lay lenn lay indiwaat li muy indiwaat ci euh, ci ci gis-gis ci mbirum jof jomaay euh, fay bi mooy tey jii téye nit te àttewoo ko téye nit te ko téye ko ci ci ci ci kaso te àttewoo ko muy jël je pense que je pense que état bi bu fekkoon ni tey jii Bassirou Diomaye Faye dana doon plan B ba dem ba bokk ci vingt candidats yi bu ñu ko njortoon. Mm. danañ ko teel a àtte teg ko li ñu koy teg. bu buñ ko njortoon ni tey jii dana bokk dina dem ba nekk candidat président de la euh, présidence de la république dinañ ko teel a àtte donc loolu mooy tey jii suñu justice ñu amoon ci ay Tall Sall mu ñëw wa wax ñu dig ñu loo xam ne ne ñu tey jii dana rataxal prison yi yaraaxa ña nga xam ne dañ leen a tëye te tey jii àtte guñ leen ñu àtte leen mais am na ci ñu bari ñoo xam ne dañ leen gis tey jii soxna Dieye ñu téye leen ba heure bu leen neex ñu bàyyi leen ne leen defoo dara mm-hmm. yoon bàyyi na leen kooku tey jii dafa waroon am sax ndàmpaay boo xam ne war nga ko ko jox pendant temps bi mu toog foofu bu fa liggoon xëy na am lu mu fa mën a jege. Mm-hmm. donc mbiru Diomaye fay day indiwaat. temps euh, day indiwaat waxtaanee temps bi nga xam ne ñu ngi koy téye ñenn ñi ci prison te àtte wuñ leen. Mm-hmm. beneen bi mooy ñun ñëpp nag dañoo gis ni bu fekkee ni nag candidat la bokk ci euh, élection présidentielle nañ ko féexal mu dem defi campagne am ba ñëw lu yoon bi lu mu ci waxaat ñu buñ ko ba jalee bu euh, amee présidence de la république bu fekkee yoon mënatuñ ko topp ñu bàyyi ko. Mm-hmm. su fekkee ni nag gañewul tamit la cay mënte am bu ñu fixé datu àtte bi ñu àtte ko man loolu laa ci jàpp. très ndax mën na am wala te am candidat bu nekk ci kaso ba pare euh, bokk ci njogante ñi ci réew mi yow lan moo ci sa gis-gis. waa mën naa ne déjà rek il faut ñun ñëpp ñu tënk ci benn mooy scénario bi ñu ngi koy soo gis Sénégal. Mm. ab candidat élection présidentielle mu nekk ci kaso bi. Mm-hmm. mais bu fekkee dañ koy méngale ak euh, ci ay nit. parce que on se rappelle que ni Khalifa Sall nekkoon na fi tête de liste en 2017 si je ne m'abuse pas nekkoon li nga xam ni moom moo jëm ci candidat élection député. Mhm. nekkoon ci kaso bi. boobu xëy na nekkul woon l'homme en personne direct liste la woon bi nga xam ni jiite woon na ko am na ay nit ki nga xam ni mënoon nañ véhiculer li nga xam ni moo jëm ci message bi. Mhm. on se rappelle aussi euh, à l'extérieur comme ki nga xam ne moom moo di Lula moom itam en 2018 euh, moom nekkoon na itam ci ci prison. Mhm. population bi itam am na nu mu fa daal di bindee mais fii ci diwaan Sénégal itam euh, ba kaaw Bassirou Diomaye fay itam war na mën a interpeller ñu bari mm-hmm. mais man il faut ñu jàpp ni amul yoon bi nga xam ne tey wax na fii ci diwaanu Sénégal que ni diw nekk na candidat mu nekk ci kaso bi dañ ko war a génne de facto. Mhm. loolu il ñu d'accord ci yoon moom. Mhm. amul benn texte bi nga xam ni tey bind na loolu te dëxëñ na ko ci kayit. loolu bu amoon kon ni ko Bassirou Diomaye fay nekkee candidat ñu fësal ko conseil constitutionnel. Mhm. kon yaakaar naa ni minute. minute qui suit. dañ koy mm. libéré dañ koy libéré waaw loolu tax ma ne nañ jël droit ñu teg ko fay ñu wax ci wàllu. waaw loolu bu fekkoon ni am na rek ci ci ci législation kon dañ ko doon bàyyi. Mm. beneen bi moom mooy itam bu leen fàtte ni Bassirou Diomaye Faye daanaka fee yu la nga xam ne moom lañ toppee Ousmane Sonko. ñu ko koy toppee. ci nga xam ne itam moo jëm ci ay njort. Mm-hmm. bu leen fàttali itam ni euh, Bassirou Diomaye Faye dossier dafa nekkoon li nga xam ne moo jëm ci correctionnel la nekkoon yóbbu ko criminel chambre mm-hmm. criminelle mm-hmm. donc ce qui veut corsé woon nañ li nga xam ni itam moom moo jëm ci mbiru dossier beneen bi itam ba il faut ko ñu rappeler ko mooy Bassirou Diomaye fay tey euh, gëm naa ni ay avocat yi nga xam ne itam ñoo koy layal ñàkku ni fan yii di ñëw wala euh, wala quelque dans quelques heures. Mm-hmm. dinañ dugal li nga xam ni moom moo jëm ci liberté euh, provisoire ba xam daan ko am wala duñ ko am. Mm-hmm. en tout cas loolu juge d'instruction ak ñi nga xam ni itam ñoom ñoo ko tëj ci kaso bi itam ñoom ñoo ci mën a àtte parce que man dama jàpp ni. patate chaude bi conseil constitutionnel daf ko jël jox ko ñi nga xam ni ñoom ñoo di juge d'instruction ak ñi nga xam ni ñoom di procureur ñoom ñoo war a mën a àtte tey. lu xool lan lañ war a mën a dogal ci sooru Bassirou Faye mhm. Bassirou Diomaye Faye te dama jàpp ni dafa am akam ak yelleefa moo tax tey wa war a nekk mën a candidat remplir na li nga xam ni itam moom moo jëm ci ay critères am mhm. kon donc fii dañu nekk ci benn scénario bu nga xam ni itam nan lañ war a mën a def man ci sama xalaat bu gàtt duma wax ni dañ koy bàyyi wala duñ ko bàyyi mais bu fekkee ni tey dem nañ ba tey situation bi nga xam ni tey moom lañ nekk ay moyens am na fi xarala yu yees yi am na fi. Mhm. liaison téléphonique en ligne tey mun na ko battre campagne ci ci ci biir au fond. ci cellule la exemple rek. Sénégal ba Sénégal moom dañoo baaxoo comme tey uh-huh. jii mën naa ne li dal kaa Karim Wade li ñu doon coow boobu ba léegi le fait que mu mu lancé campagne digitale. Uh-huh. xam nga loolu ñu bëri jàppoon nañ ne mu ñëw teew ci terrain bi. Uh-huh. moom moo ko gën kon donc Bassirou tamit xam naa ne du. ñàkk xam nga xam nga xam nga ñun. Euh, duñu wax ni yoon bi moom lii la wax wala mais xëy na tey Euh, prisonnier candidat bu nekk ci cellule la. Mhm. ñu ngi xool ci. nan la war a mën def tey ba véhiculer ay messages. Mhm. wala itam. CNRA jël mën a jël ay dispositifs am. Mhm. xool naka la mën a def ak ñi nga xam ne ñoo di waa RTS. Mhm. ngir xool naka la candidat bi itam war a mën a waxee. Mhm. Ah, yooyu noonu yëpp peut-être ni. xam nga xam nga ñu ngi doon. ñu ngi njortu sax ne euh, peut-être comme moom mënul am am liberté pour mën a génn dem defi campagne euh, yóbbul ko ay ay ay caméra wala ay micro mu waxee ko te loolu daf daf daf ñuy may taxaw seetlu bu ñu fi waxoon fan yee passé. bi fii Ousmane Sonko ne day def déclaration. communiqué bi ci service communiqué boobu moom laa la xam nga ko ko may mm-hmm. xam nga ñu ba sax ko filmer waaw mais parce que yéen ñëpp nag da ngeen di dem euh, ci prison yi gis ñu teg duñ ko filmer de nit ki lenn rek moo mën a ne mm-hmm. soit ñu bàyyi ko mu dem def affaire yi euh, tamit dafa campagne c'est pas euh, mais ñoom bu ñu ba mën koo xañ liberté mu génn def campagne xëy na dinañ jël yeneen matukaay yu mën yu tax mu mën a def ay déclaration déclaration waaw waaw loolu soo waxee ci loolu dinañ d'accord mais buñ nee comme ça yóbbul télé wala yóbbu loolu déjà prison kenn du ko filmer hmm. loolu moom xam ngeen ko yéen ñëpp waaw donc nag ñaar moo am ma jàpp ni soit ñu bàyyi ko mu dem defi campagne parce que campagne aussi c'est pas que loo xam ni c'est visuel da dem rek hmm. ñu wane la télé ñu gis la mais campagne si contact la hmm. entre le candidat et le solo mais je pense que Dieye Diop li mu bëgg a wax mooy que war na ko trouver des moyens Euh, li nga xam ni nag moo jëm ci fee yi ñuy toppee Bassirou Diomaye Faye mhm. Mhm. boo ko xoolee c'est similaire ak li ñuy toppee Ousmane Sonko. Ah, loolu beneen jàngat la voilà waaw waaw moo tax moo tax tey parce que Bassirou Diomaye Faye bu fekkee ne liñ koy li ñuy toppee Sonko lañ koy toppee Sonko moo nekkoon tête de parti Pastef Bassirou mhm. n'était pas le euh, n'était pas en fait d'accord xam nga tey ah. xam nga bu le fait tey ñu jàpp Ousmane Sonko ñu wax rek dañ naan instigateur bi c'est Ousmane Sonko moom ah. la ñuy wax. Mm-hmm. Ah. mais tey ñi nga xam ne tey ñu ngi ci biir kaso bi boo xoolee. Mm-hmm. ñu nekk ci biir prison mais ñoo ñëpp bu procédure dina am Ousmane Sonko mooy taxaw ñoom ñëpp taxaw parce que ñoom ñëpp la ñuy attendoo. Mm-hmm. parce boo xoolee fee yi benn la. léegi beneen bi maanaam weesu nañ foofu que peut-être egg eggaguñ foofu mais leneen li mooy Bassirou Diomaye Faye dëgg la ñun ñëpp situation bi ñoom ñoo xam ñoo yor ay seen cëggali guy te man dama jàpp ni. conseil constitutionnel. moom moo jël li nga xam ni moo jël xal bu tàng bi jox ko ñi nga xam ne ñoom ñoo war a àtte mooy juge d'instruction ak ñooñ ñooñ nag bu ay avocat Bassirou Diomaye fay déposé ab dossier beton pour mu mhm. war a am liberté provisoire man gëm naa ne ñoom dinañ ko jox. waaye bu fekkee ne moom nag dafa tënku ci yoon ne du ko ko jox nag itam alternative comme li wax il faut am ñam wuti ko. tënku ci yoon te yaa ngi wax léegi ne yoon décidé wul loolu décidé wul boobu benn amul benn yoon bu mu wax ni waxul ci candidat si sa dooranteelu njorteelu wax da nga ni yoon décidé wul. candidat moom non dama ne xam xam nga dama ne. xam nga dama ne la on est dans une situation boo xamante ne nii situation presque mus am ci Sénégal. Hmm. xam nga il faut il faut il faut il faut. tey da ngay nangu itam ni provisoire dañu teg sukkandiku ci ay ponk yu leer pour ñu mën a am bàyyi mu ndégandiku waaye bu ñu leen ko bañalee itam mhm. mais pour mu war a dem campagne il faut que ñoom uti ay alternative mhm. mënta ñàkk loolu laa wax ah, wax jeex na très bien defe naa ne am na solo suñu internautes yi tey fàttewuñu leen a une toute petite waaye tey dañ koy euh, euh, tënk rek di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziara Modou Gueye mi ngi envoyé bokk xam ne mënuñu koo lire ci plateau waaw mënuñu koo ñu euh, ngi koy nuyu di ko ziar Euh, bu baax a baax nuyu ñu ko comme sa xarit la. waaw ah. <laughs> donc Jarga euh, Bona ah, moom tey nee na mooy xaritu Memba Dramé ziar ñëpp ñu ngi ziar ñëpp voilà voilà ñi ñi déglu bari nañ trop ñi déglu bari nañ trop war naa lijjanti sama xarit parce que comme sa xarit am nga mu tamit sa xaritu bopp en mm, ah, nuyu di leen mm-hmm. ziar bu baax a baax seen ànd ak ñu a di a mm-hmm. ndax soxla nañ leen bu baax a baax alors Diop ñu wax nag ci kaw Sonko ak Karim Meïssa Wade gis ne ñoom ñaar dañ leen mujjee éliminé. Mhm. Euh, du ñu bokk ci li jëm ci jogante ñitu réew mi atum 2024. doo mhm. euh, gis nañ sax député yi nga xam te ne mooy les députés libéraux ñuy euh, visé nag ñaar ci membre conseil constitutionnel ni daal daf dañ leen di soupçonné. Mhm. ñu bokk ci wàllum corruption tey lu ni mel dem nañ ba duggal recours jëm ci li nga xam te ne mooy CEDEAO gis nga ne recours boobu noonu xëy na dina mujj fenn. waaw mën na mujj fenn comme mën na ma bañ a mujj fenn mm. parce que ci seen droit rek la ñu nekk comme ñeneen ñi aussi ni ñu gisee lu leen naqari eh, ci ci ci ci lu jëm ci euh, parrainage yeeg euh, élection yi mm. ñu def recours ñoom tamit xam nga lii euh, déjà dafay gën a yokk sax ci xar mi karaw ci contestation yi nga xam ne boobaa léegi ñu ngi koy nemmeeku ci ci ci élection yi parce que waa parti démocratique sénégalais mu mel na ñoom mënuñu digérer mm-hmm. le fait que ñu ñu recalé ki nga xam ne moom moo di Karim Wade loolu moo tax ñu bëgg dem seeti ëttu àttekaay yu mag yi ñoom fi ñu ko defee dafa dafa yéex fi ñu waroon a jógee dafa yéex. Mm. te tey jii gis nañu Karim aussi tamit dafa mel ni moom dafa xamoon lii. moo tax boobu ba léegi ñu koy xaar ñëwul. xaw ma nag ba xam daf ci amoon lum njort wala daf ci xaaroon xëy na un jour. Mm. ñu bañ kaa euh, ñu bañ kaa valider mais lu mu ci mënti doon man jàpp naa ne. ñoom seen bopp waroon nañoo prévoir benn même bu dee sax euh, plan B. Hmm. boo xamante ne tey su Karim demul tamit euh, kooku dina dem mais dañoo jëloon nag seen lépp daal di koy jox Karim Wade te wax dëgg yàlla tamit. comme ni ñu ko doon waxee léegi rek gis nga contact direct bi ci entre candidat bi ak population bi dafa nekk loo xamante ne dafa am solo xëy na nag ñoom am nañu njortu xëy na ci li ñu jàpp ne conseil constitutionnel ni mu xoolee seen dossier te lii lépp li ko waral bokk na ci coowal double nationalité bi mm. ndax bu ñu xoolee date bi ñu wax ne moom la dugal dossier ak date bi nga xam ne moom lañ ko validé waa France donc am na benn différence bu mag boo xamante ne moo ci nekk xëy na nag peut-être jox na ndam Thierno Alassane Sall mi nga xamante ne tey jii moom moo suli coow li lépp lu mu ci jublu woon xëy na am na ko ci parce que tey jii def na recours jëmale ko ci benn moroomu candidat am. Mm. ñu xool ay dossier gis ne kii kat warta jàll ñu invalider ko. xaw ma tey jii lu muy sentir ak lu muy yëg. mais de toute façon am na ndam mën nañ koo wax ci ci ci ci ci ci ci li mu defoon. Mm. Euh, beneen bi moom mooy euh, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko xam nga tey jii bu ñu demee ba ne Ousmane Sonko dañ ko rëkkale parce que dafa dafa dañ ko daan bi ñu ko daan ci ci ci digganteem ak euh, Mame Mbaye Niang ci coow li doxoon ak moom loolu moo tax jàllul parrainage donte ni sax jox nañ ko ndam. dox jox nañ ko ndam ci le fait que ñu bañal ko fiche de parrainage yi bañ ko réintégré waat ci ci liste électorale bi. Mmh. xam nga lii yëpp dafay wone ne caaxaan yi ñu doon wax dès le début feeñ na. parce que tey jii boobu léegi mandataire am amul fu mu taxawul ñu ñu bañal ko fiche de parrainage ne duñ ko ko jox. Mmh. yoon jël dëgg jox ko ko. ñu ne mukk duñ ko dugalaat ci ci ci liste électorale yi. Mmh. dem nañ ba tey jii ñu waa conseil constitutionnel wala war a war a valider. candidature am ñu door a wax ne dañ ko invalider parce que. lim jotee ak Mame Mbaye Niang àtte boobu ci lañ ko jarale donc liñ doon joué lépp kon ban sens la amoon. li ñu doon joué lépp boobu ba léegi di di di aw awloo ay ay mandataire am waxuñu ko lu leer donc xam nga lii dafay dafay dem ba benn instant sax waa conseil constitutionnel wala sax dañ naan rëq-rëq yi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy jooytu candidat rëkkale yeeg ñàkk leeraange gi nga xam ne ñu ngi koy wax ci fichier électoral yi mm. loolu yëpp mën nañoo dem sax ba wax ne lii ay tontu lay doon mm. parce que jii ay candidat yoo xamante ne tey kenn gënu leen a jekk ci dem ci élection yi nga rëkkale leen ndax lan peut-être Karim Kaam mën nañoo comprendre parce que xëy na peut-être. double nationalité bi double bi ñu bañ ko fii suñu de. mais Kaawu Kaawu Kaawu Ousmane Sonko euh, loolu moom wax dëgg yàlla man xaaruma woon sax ñu ne dañ ko rëkkale parce que. procès moom ak Mame Mbaye Niang la mais mm-hmm. dama foogoon dañ koy rëkkale parce que ànduñu ci li nga xamante ne loolu la yoon teg teg wala peut-être dafa ñàkk remplir critères yi nga xamante ne moom lañ ko àndoo ci raison yi ñu taxawal c'est ça yi ñu mm-hmm. man loolu noon noonu laa ko jàngatee très bien alors euh, li jëm ci euh, kaaw kii di euh, Ousmane Sonko waaye tamit kii di may Karim Meïssa Wade Karim sa wat gis nañ ne fan yi yëpp ñoo ngi ko yee yàbbee ci wàllum double nationalité waaye tamit Sonko bi nga xam te ne ñoo ngi ko recalé ci mbirum Mame Mbaye Niang ban jàngat nga ci am mais rawatina recours bi nga xamante ne euh, wàllum PDS ñoom dugal nañ ko euh, ca CEDEAO. waaw d'abord pour Ousmane Sonko moom euh, bi samedi bi ñu bi ñu ne recalé nañ ko samedi. bon ñu ngi doon xaar di gis affiche yi liir lan lan moo tax ñu recalé ko bi ñu jàngatee nag wax nañ ñu. nañu. les vraies raisons. les vraies raisons mooy nag euh, yi mu doon càkkutéef yëpp nangul nañ ko ko. Mm. waaye fi ñu ko ko da euh, fi ñu ko ko waxee mooy fi jee wax ci digganteem ak euh, Mame Mbaye Niang. coowal diffamation boobu moo tax nanguluñ ko. Mm-hmm. mais loolu daf ñuy poussé tey jii ñu def benn jàngat bu ndaw. Mm. ci mbir moomu koo xamante ni yow d'accord conseil constitutionnel mooy wax. Mm-hmm. d'accord nga ni con CDC joxu ko fiche bi. Mm-hmm. te waroon na ko jox indi nga. maanaam càkkuteef yu mu def yëpp def ko. léegi mhm. tey ji Ousmane Sonko en retour est-ce que mun a am ndam tey ji ci ko CDC ma ko ba ñoon a jox. fiche de parrainage je sais pas si je me fais comprendre parce que je voudrais juste amul waaw ma ne ma ne tey ji est-ce que mënul et de que tey ji conseil constitutionnel dàqool na ko loolu même bu fekkee conseil constitutionnel du juge boo xamante ni day àtte lu jëm ci wàllu mais tey ji utoon na utoon na un huissier bu constaté ni dañ koo bañ a jox fiche yi. Mhm. te conseil constitutionnel nee na ko d'accord naa ci ni. fee joxuñu la fii si mais wutoon nga nangam ak nangam est-ce que tey jii Sonko munta am dëgg ci fépp foo xam ne jàppoon nañ dem nañ fa. te mhm. lañ ko waroon jox joxuñu ko. Mhm. en retour est-ce moom tey jii warta mën a duggaat toppaat ña nga xam ni ñoo ko ko bañoon a jox xam nga loola loolu loolu beneen jàngat la. mais heureusement ci différence Ousmane Sonko ak euh, ak euh, Karim Meïssa Wade mooy. Ousmane Sonko wax ngeen ko dugaloon na yenn ci ay nitam ce que Karim Wade n'avait pas jugé euh, faire parce que moom xëy na jàppoon na ni euh, à son ultime conviction c'était pas nécessaire dina jàll parce que xam man jàpp naa ni Karim Wade foogul woon ni problème mu nationalité moo koy téye mhm. parce que bu ko foogoon bu ko foogoon dina teere dina teel a euh, régler mbir moomu parce que li tax ma ne jàpp ne foogu ko woon mooy en 2019 ci benn euh, waayam boo xamante ne nii mi ngi bokk ci PDS. Mm. la ma wax mooy en 2019 lañ ko lañ ko téye mooy da nga ni dafa. dafa nekkul ci fichier bi amul carte électeur loolu lañ ko inscrit euh, Kaniwaat nekkul woon ci fichier bi. mais kuy dem ci échéance yu mel nii da nga war a waajal sa bopp ci côté yëpp Fall. waaw te tout à fait loolu laay wax dama ni moo tax ma ni ma ni Karim Meïssa Wade comme bi 2019 dañ ko ni nekkoo woon ci fichier ah. euh, raison boobu lañ ko jox. 2019 ah. dafa jàpp boobu loolu de moo tax nag mu dem dugg ci fichier bi. ba mm-hmm. bu fekkee ni 2019 dañ ma ni bokkoo ci fichier bi 2024 dugg naa ci fichier bi xam nga day jàpp ni kenn du ko <laughs> kenn du ko tere mm-hmm. léegi nag euh, far yàlla lii daal dugg mais li ma ciy jàngat xëy na bu ndaw rek avant temps bi mi xam naa ne duñu ko may mooy gis nga réew dafa sacré man damaa bokk ci ñi nga xam ne dañoo gëm réew ponk yi bu ñu ko tegee bu ma koy wax nag du neex ni ponk yi bu ñu ko tegee ne ku ci euh, jaar yoon daal sa kaw wala doo am lii nañ ko teg ñëpp jaar ci parce que tey jii même bu fekkee ni sax def nañu ay yenn gëstu wax ni à l'ère de la mondialisation war nañ ba mais donc boo amee double nationalité nekk ci diggante ñaari dëkk di jaabante nga dem ba ci dëkk boobu nga nekk fa président kan moo ñu ni mm. yow dëkk bi ngay gën a défendre que dëkk bee mm. wóoruñu donc ñun ku wax pour man damaa jàpp ku wax Thierno Alassane Sall tooñ ko mm. Thierno Alassane Sall naa rien rien fait du tout il a fait kër rappeler alerte mm-hmm. alerter sur li nga xamante ni loi loolu la wax mm-hmm. mais man tay jii man tay jii bu ma gisoon beneen candidat boo xam ne jàpp naa ni mën naa arrêté nii ci am na benn manquement ci neuf critères yi ñuy teg man dinaa toog tey jël sama big bind conseil constitutionnel ne leen candidat diw am na manquement ci ci tel ci critères yi nga xam ne da parce que réew c'est sacré buñ nee juróom-ñeenti ponk yi danga koy matal danga koy matal pour dem ci réew léegi nag maintenant fi may daane la mooy yóbbu na mbir yi ci yoon mm-hmm. yóbb na mbir yi ci yoon li am na sax lu mu wax ci ñaari juge yoo xam ni tey jii ñu ngi bokk ci conseil constitutionnel loolu yëpp ay matuwaay la yoo xam ne tey jii war nañ ko jël mais beneen te ak lu ci mënti am bu weesoo nañuy toog di waxtaanee ponk réew mi charte réew mi ak lépp lu jëm ci wàllum élection. très bien defe naa ne am na solo Sonko euh, ki nga xam xamante ne mooy Karim Meïssa Wade éliminé euh, ci jogante nitu réew mi atum 2024 Memba Dramé la moo ci sa jàngat waaye tamit recours bi nga te ne dugal nañ ko jëm ca CEDEAO euh, gis nga ne xëy na dina mujj fenn. waaw ah, déjà rek man lu ma mën a wax ci parti démocratique sénégalais ak Karim Wade dafa yomb trop. Karim mm-hmm. euh, li nga xam ne bëggoon nañu ko defal yaakaar na ni da ngay ñëw jël rek réew mi nii quoi salaamaaleykum jéggi jàll. <laughs> te wax dëgg yàlla. Mm-hmm. Alioune Badara junjoon na ko réew dafa am solo dafa am ay critères yi nga xam ne dëkk bi moom lañ teg te da nga war a sàmmonte ak moom. Mm-hmm. alors loolu boo ko accomplir nag man gisuma fu fi nga mën a dem. alors pourquoi parti démocratique sénégalais nag di mooy si benn nit bi nga xam ni tey yow jàpp nga ni kii mm. mënta nekk candidat mais nga jàpp rek. dina ñëw dina ñëw. dina dem candidat dina nekk candidat à à chaque fois maanaam musique boobu lañ ñuy jox. te hmm. di ñu gëmloo itam. ni di Wade dañu ko gëm sax mais nañu wut beneen daas fanaanal mais lu leen tere tey comme parlementaire lañ jaar dem. amoon peut-être mënoon nañ am ñaari ñi nga xam ne moo jot ñaari candidat mm-hmm. am yi nga xam ne dinañ négocier signature ba sax mm-hmm. mais après nga toog nii tey nga ne yow da ngay def da ngay waaw da ngay saako enquête parlementaire foo koy mm-hmm. am fii assemblée nationale douze ans parti démocratique sénégal jox nañ dëgg ña génn parti démocratique sénégalais te jote woon ak Karim tey ji jox nañ leen dëgg de deux élections locales yi weesu ñoom ba ñuy campagne Karim Meïssa Wade lañ campagne mm. loolu bokk na ci li leen rey parce que mm. local tamit affaire gox la booy jël jëlal candidat wu gox ba nga fësal ko waaye ñoom ñu ci bëri dañ ni Karim la ñu jël fësal ko ca kaw ci koo xam ne nekkul Sénégal ah. yàgg <laughs> problème la dé déjà léegi naxa ngay naxa la ñuy taxawaatee mm-hmm. parce que maa ngi gis ay post yenn ci ay responsable parti démocratique Sénégal lan la la leen Karim Wade def mm-hmm. la leen PDS def mm-hmm. parce que engouement bi nga xam ñaaree parti démocratique sané sénégalais ba ay difficulté amee woon ci opposition bi engouement boobu amu fa woon parce que tey ñoom itam ku ñu xawma ku ñuy fay sa bor xawma nag dafa fekk voilà la nga leb de moo loolu itam nañ ko ci séntu mhm. beneen bi moom mooy euh, li nga xam ne moo jëm ci élection yi itam di ñëw bëri na néew na il faut que électorat parti démocratique sénégalais kan moo ci bénéficié wu loolu mhm. itam ki ah, interrogation la même bu fekkee deux la mhm. mais itam électoral am nañ bastion bu dëgër ci nga xam ne moo jëm ci Sénégal bi yëpp même bu fekkee ni benn benn ba démissionné nañ. Mhm. en tout cas daal war nañ xool seen mbir. Mhm. mais gëmuma ni li ñuy wax enquête parlementaire mu antu. CEDEAO itam gëmuma mu antu parce que itam da koy xool yow beneen dëkk mën na jël ay dispositif dispositif am. Mhm. yóbbu ko conseil constitutionnel. dëkk boobu ñëw ne yow déedéet li nga àtte baaxul euh, euh, euh, génnewaat ko. loolu kan moo koy nangu fii Sénégal. kon dama jàpp ni béy woy na mbuus Ousmane Sonko nag dañ ko tooñ. Ousmane Sonko dañ ko tooñ li mu subir bari na. Mhm. ci li jëm ci injustice mujjanteel bi lan la wax ñu ngi ñuy soog a wax ni nag lan moo tax ñu éliminer Ousmane Sonko mooy diffamation. Mhm. mbirum Mame Mbaye Niang kon mënoon nañ ko bàyyi mu dem jël kay li nga xam ne moo jëm ci caisse de dépôt consignation DGE ak ainsi de suite mhm. maanaam élection yi dëgg la nañ fa dem de. waaye contestation dana bari wax ji dana bari waaye li ñuy ñaan rek ñu def ko ci dal ak jàmm que le maire gagne. très bien alors defe naa am na solo ñu nuy bu baax a baax DJ Bouba depuis ITV e euh, vraiment notre fidèle auditeur moom tamit daf ñuy déglu bu baax a baax te loolee euh, daf ñuy euh, gën a may doole rawatina ci liggéey bi ñuy def kon mooy noonu lu neex du doy dañ ko fi yemalee ba suba jàmm di jaajëfal toute l'équipe de la régie Malick Faye waaye tamit Diaw Diallo du côté de la radio Penda Faye ci maquillage ji Amady Niang la coordination ba suba jàmm incha allah. réew mi réewum ñépp la laante biiroo xuloo bi amul